salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internetu Lutte TV ginnaaw bi ñu doon nuyoo di leen ziar rek di am mbégte contentement daal di yéen saa su ne ci programme Lutte TV tey nag ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci dëkk bu ñuy naan Mbelaka Jaw nekk à peu près à peu près rek ci kilomètre ci digganteem ak Fatick nekk dëkku cosaan dëkku làmb ñu yàgg fii tëgg ay bés yu mag TV ñëwal leen fi fas yéene leen andi cosaan fecc woy ambiance ak Lutte TV nee naa leen affaire bi fii la ginaaw ginaaw yeey sante na roog o yaal rek simna o fog o mbela kajaw fop simna goor fo rew maak faxa teɓ xeɗa oxu garna meen yasam a numtong na jam atna meen jangaru yit yasam rooga fajin atna meen soxla yasam rooga fajin manam in no njomi yo nuwa ndeta mu refeer na mais manam kene i nga'na mene xaye c'est la première fois i nga'anoyo ça fait trois ans in way no calel ke mu refna i ndeta ma mbidama nda c'est la première fois i nga'a a amateur ne i mbagna lay rek un euh, afi kene teranga fene a jofnin no arbitre ko a sax de fois wiin we critique a arbitre ke manam coté lu refeer na mais xaye manam a firndeela ye rek amateur fo arbitre fo mbir manam den mbogu njom ngeɗanan rek ken te na ren bo mbana fada roga waag no ren ka xopuna njajafala arbitre ke yit ñaxa den rek encourager a den arbitre ke Dakar des fois kam tooña den laya dene mba nuun way muña parce que owey njala calel ɗomu calel ɗomu calel risque yasam roog a geen wa den i content a paax rek lu dul ñaanaa na a Cheikh yaa sam roog a xajin men ay ca mbokk yi ni ngeen ko gisee rek kii mooy Cheikh Ndiaye ngeen gis blouson yi ngeen gis ni mu defar ko génne xaalis bu bari jël alalam defar ay blouson yaakaar naa si c'est la première fois si histoire lamb ñu gis nit di ko def kii mooy Cheikh Ndiaye dëkk Mbélé Kadiaw Cheikh ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu wér bu kar euh, kontaan rek ndax euh, waxatuma la dara rek waaye teewaay bi mbooloo bi teew rek euh, maanaam lu bëri la def ci ñun daal. ndax woote ñu wuyu la kon nag ba wootee ñu wuyu la ba pare ñu ñëw aussi jàpp def ko comme seen bopp daal vraiment sant nañ yàlla daal bu baax a baax. tey nga dëkk si dëkk bi di di di dox li développé dëkk bi lan lan ngay wax rek ñi dëkk si dëkk bi mën a investir mën a mën la dooleel si liggéey bi nga sumb nii ngir jëmale Mbéla Kajaw kanam waaye ngir jëmale surtout lamb Mbéla Kajaw jëm kanam. waaw loolu moom dama yaakaar ne képp koo gis mu ci àdduna muy dund rek dama yaakaar ne fi nga dëkk boo Euh, sa bopp ngay nax rek parce que nit ki moom waxuma la dara mais sa cër gi nii sax boo ko solul yére nit du ko gis mukk ba naaw ko mooy kon fi nga dëkk dañ nga ko war a defar ba ñëpp naw la ci Mbelacka Diaw suñu Mbelacka Diaw la bu baaxee ñun ñoo ko baaxal ah bu melee ne noonu aussi ñun ñoo ko def kon nag dañ koo war a toppatoo daal def ci lu ñu war daal ak suñu kii képp ku fi nekk aussi ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla mën loola daal nga def ci dëkk bi dara daal looy wax ci liggéeyu Lutte TV ci lamb comme en tant que amateur bu mag a mag a moom damay ñaan rek euh, ca kaw ca kanam rek laay wax parce que tey mën naa ne waxuma la Sénégal kese waaye monde bi yëpp daal képp koo xam ne yaa ngi dund lamb euh, kontaan nga ci Lutte TV parce que ñu bari lamb réeroon na leen waaye Lutte TV feeñal na lépp daal ñu sant leen daal di leen ñaanal daal seen télé bi dem ba yokk daal fu kawe kawe kawe. ñoo ngi lay jaajëfal jërëjëf. Danda Cheikh Ndiaye Dande maayo Daouda Thiangane zongole nga koy jéem a zongole Daouda lang na kottu na ko Daouda bañ na Cheikh Ndiaye Dande maayo Daouda Thiangane Cheikh Ndiaye ak Daouda ñaari mbër nga ca Cheikh Ndiaye Dande maayo Daouda Thiangane nag waaw ba léegi rek kii jóge Thiangane kii jóge Soob Cheikh Ndiaye maayo Daouda Cheikh Ndiaye zongole waat ko Daouda di lang oh Cheikh Ndiaye waaw mais lan la nii Cheikh Ndiaye maayo Daouda cangaan zongole na ko ma nga ca taxaw di ko xaar Cheikh Ndiaye zongole ko taxaw waaw mais lii fan la am Cheikh Ndiaye maayo Daouda cangaan ma nga ko zongole taxaw ba oh ñaari mbër yi nañ Cheikh Ndiaye maayo oh Daouda cangaan daan na ko jël bëree na Cheikh Ndiaye Daouda na ko Daouda cangaan daan na ko. c'est extraordinaire. ayca Moussa ziar na la. waaw dellu si looy tamit nii nag. waaw tamit ma de waaw. waaw ragal nga bëri bëri final ak Abdou Sarr. Abdou Sarr ak day neex de. nee daf la daanoon dalay daanal. waaw déedéet. du la daanal. déedéet. waaw xoolal caméra bi. kenn du ma foo fii di bëri si fii. waaw. Jawle. ah Jawle. waaw. nga ñëw bëri si fii. waaw war a waaw waa Gubal ah. ah, ma ngi leen di bëggee rek. waaw waa Gubal Moussa mu ngi leen di bëggee rek. waaw jaajëf. waaw ziar naa la. waaw maa ngi lay delloo ziar. yaa war a def final poussière. waaw xam nga ki war a bëri. waaw xam naa ko bu baax a baax. mas ngeen bëri. waaw mos naa koo ko daan benn. waaw ndaj li waaw. tey mu war a ñëw jël revanche am. waaw xam naa. looy wax ñi lay bëgg. Euh, di leen jaajëfal rek euh, surtout waa Gandiaye waa Gilasem euh, nuyu naa ñëpp surtout Boucar sama doom bajan maa ngi koy ziar bu baax a baax waaw moom tamit def na lu tout jóge Dakar ba fii def lu tout maa ngi leen di bëggee ayca Moussa ak Abdou final baa ngi noonu final poussière Moussa daw na wër na ko takk na ko Moussa takk na ko Moussa takk na Abdou wër na ko ndombo Abdou mbaa di nga ci génn yéen ba ci kaw door si suuf oh Moussa fayeeku na musa daan na ko jël na. Tyson bu Reug Reug ziar naa la. waaw ziar naa la doom Ndeye Boucar. amateur bu mag bi. waaw loolu dafa leer. man dama newoon doo amateur waaye nag man tey nangul naa la sa amateur bi ma la fekkee Mbélék Diaw nga taal sa oto seetaan si lamb. non loolu dafa leer ngem la ngemu jaxaw bi la yaa ma gën a xam te fii nii dafa nekk sama zone ma football bi nawetaan def fi lu ne ñëpp xam ma fi kon yoon la suñuy tëgg ma ñëw en tant que président Momo Ngom si sama rak muy doomu Babou Ngom kon en tant que amateur naka nga gisee li Cheikh Ndiaye def maanaam débloqué ko lu plus de 150 000 defar lu ay blouson pour arbitre yi si amateur loolu c'est la première fois si histoire u làmb ñu gis nit di ko def. waaw loolu moom dañ koy wax mention spéciale rek ndax euh, lu war la lu yokkute yokkute la tamit quoi ndax kii kii defar sa dëkk moom amuñu dara di la lu dul di la jaajëfal te moom ku bëgg dëkkam la vraiment kooku dañ koy jaajëfal bu baax baax. ñu ngi lay jaajëfal jaajëf Serigne Basirou sama Serigne sama lépp man ngi lay ziar. dellu ziar Bokar. di kenn ci man. sant yàlla bu baax kay. Euh, sa sa sa sa sa sa naataango di Cheikh Ndiaye invité la def lu toll nii si bés bi loo si mën a wax. non Cheikh Ndiaye sama xarit la sama wóolore la. léegi daa am fu ñu demoon mu woo ma ne boo bul ñàkk a ñëw ci lamb bi léegi Cheikh Ndiaye maanaam besam daal sama bés la waaw bu ma waxee besam moom il faut ma ci besam moo gën. loo loo loo ñaaxee amateur yi rek si li Cheikh Ndiaye def te loolu arbitre blouson. xanaa ñu gën a góorgóorlu rek parce que lam moom ñëpp a ko bokk to boo nekkee amateur da nga a xam ne ci li ma lekk nii lépp la xëj na ci lépp xëj na ci. ñu ngi lay jaajëfal ah ñu ngi lay jaajëfal. waaw Boucar xanaa kontaan ci yow rek waaw moom sama gars yi am na loo xam ne mooy loolu quoi jaajëf. final raw gadu Pape Birame Faye ziar naa waaw delloo ziar bu wér bu ko. a yëg. waaw xanaa bëri rek. Hmm. bilaay walaay. sama waa dëkk di leen sant di leen gërëm rek xanaa. xam nga ki nga war a ko moom wax dëgg. ko déedéet xaw ma ko loo koy wax. ah waaw mbër la de moom. Ah. waaw wax dëgg mbër la moom. loo ko loo koy andil. ah loo ko nar a andil bëre rek. bëre moom li mu ma jox ko ko waaw. ñoo ngi lay jaajëfal waaw jaajëf. yaa tudd nan. Mamadou Latir Diouf. Mamadou Latir Diouf. waaw nga war a bëri final raw gadu. moom dinañ la a dinañ la xamul waaw. xam nga ko. te xam nga ko waaw. kon lan nga yëg. vraiment sant naa. foo dëkk sax yow. Mbadakhoune laa dëkk. ah Mbadakhoune. waaw nga ñëw di bëri final. waaw wax. non vraiment sant yàlla rek. Ah. waaw waaw bëri moom sant bi mu laaj rek moom la ñu koy jox waaw. waaw ñu ngi lay jaajëfal. waaw jaajëf. ayca final noonu. final raw gadu. diggante Biram Faye ak Pape Ladir Biram Faye Pape Latir Birame Faye moo jógee Mbour Sine moo yore ngemb lu ñuul li Pape ngeen jàkkaar lool moo jógee Mbadakhoune Birame Faye Pape Latir final raw gadu aca final baa noonu oh Pape Birame Faye war na ko ndombo Birame Faye oh Birame Faye ak ak Pape Birame Faye Pape Latir Birame daan na ko Birame Faye daan na Pape Latir Birame Faye daan na Pape Latir Birame Faye jël na rab ñaar galoo lañ koy wax ziar naa la. waaw doo la ziar bu wër. ñaaga si loo ne. waaw maa ngi nii rek. nga war a bëre nga war a bëre final. waaw gis nga rek comme d'habitude. di yëg lan. waaw dara kontaan rek ak mbégte ah. xam nga ki nga war a bëre. waaw maa ngi koy gis si lamb yi mais carrément xamu ko quoi. non non xamu loo koy wax. dara dañu ñaan yàlla ndam si kawam rek. incha allah di leen jaajëfal ci seen taxawaay baax si lamb ji. jaajëf jaajëf champion waaw tur bi. muy Dawda. Dawda Cangaan. Dawda Cangaan Dawda maa lay bëggee. waaw maa lay nga war a bëreeg ñaargal ñaargaloo. waaw. final. waaw final nga yëg lan. combat bi daan rek. Ah. waaw bonne chance. waaw am problème. ayca ñaargaloo Dawda Cangaan ñaargaloo ngeen jàkkaarlool. fi si Mbella Kadiaw su ma nee Mbella Kadiaw sama xel dem si Cheikh Ndiaye nekk un grand marabout tey moo débloqué xaalisam di lal arbitre yi blouson sol waaye tamit nekk amateur lamb bu mag di nuyu rek Faly Mbodj ak soxnaam di sama jigéen Sanu Ndour ak waa kër gi yëpp ñoom Ousseynou Mbodj maa ngi leen di ziar ak sama frère ñargaloo ñargaloo daaw cangan final baa ngi noonu final poids léger bu ñu paree ñu jublu ci poids lourd yi ñaari mbër yaa nga ca final ñargaloo zongale waat na waaye Daouda bañ na ñargaloo Daouda cangaan ñargaloo Daouda cangaan ñargal lonk na caxa bal ba mu moy Daouda am na bu da koy zongale Daouda dak oh, ba moy na ñargaloo Daouda cangaan Ñarga moom ngeen jàkkaar lool mooy njool bi moom ak Daouda Thiangane Ñarga jongole ko mooy na Ñarga na ko Ñarga Lo da Ñarga Lo daan da kaa mat Daouda Thiangane nee na sa lan lay wax baabi sa waay daa waxoon ne dañ ko mat waaye normalement bu dee dañ ko mat dañ ko war a disqualifier bu dee mat ku nekk nañ joxe victoire loolooy norme loolu mooy norme arbitre bu dee da ko mat dañ ko war a disqualifier waaw mais ñarga ñarga lu xew waaw ne dañuy bëre man moom ba si biir bi mbër bu foo mën a gis si lamb dina am ay xoosante li ñuy jàppoon ci kaw ñu xoosante mu ne ma dama xam mat loolu moo moo lay discuter. mais bu dee da ko mat. dañ la ah. war a disqualifier bu dee matoo ko dañ la war a jox victoire. waaw ñoom nee na nee na mat. ñoom bu dee gisuñu mat dañ la bu dee gisuñu mat. dañ ma war jox sama victoire. bu dee gisuñu mat dañ la war a jox victoire. non gars yi abi dañu dañu sérieux. mais doy waaye dans les bu dee matu ko dañu waroon jox Ndiar victoire dari moom aca arbitre sifflé waat na dañ leen di may une minute sa waay daw na ñargaloo daw na jël ko sa waay bañ na ñargaloo oh ñargaloo daan na ko ñargaloo daan na ko ñargaloo daan na ko o daan na ko ñarga looy wax daan nga ko waaw kontaan rek kontaan rek parce que lamuñ métti na loo lool lool lool gis nu mu yàggee mais sant yàlla baax yàlla may na ma ndam sant yàlla baax looy wax sa waa dëkk waa man ronk laa dégg ronk. ma ronk. maa ngi gërëm waa ronk yëpp. ronk fan la ne. ronk mi ngi waalo. waalo wetu Sénégal. mais waalo sori na sax. bilaay walaay joxe foofu rek ngir yaay. ñëw ba ngir yaay kese. ngir yaay kese bilaay walaay yàlla may. arbitre yi bëggoon yàq parce que da daan mais dans les normes su fekkee ne matoo ko. waaw dañ la waroon jox victoire. normalement su fekkee da nga ko mat dañ la waroon disqualifié. barke yàlla mais leen woon bëriwaat. bilaay walaay gars ñoo si réew rek. maa ngi sant yàlla baax sama yaay bu baax a baax. ñoo ngi teeg di la waay. Ça c'est Doudou Sané le grand champion qui nous vient de Diofior qui est en train d'illuminer Mbelakadiaw vous le voyez un jeune tenace pétri de talent Doudou Sané qui a disputé notamment récemment un combat à l'arène nationale il a fait son baptême de feu Doudou Sané qui nous vient lu mel noonu Serigne Bassirou Sarr Elle est en train d'illuminer Mbelaka Diaw ça c'est la Mbodj a ngi noonu sama goro kii di frère am di Assane Mbodj waa Mbelaka Diaw a ngi noonu waaye Mbayang Loum noonu waaw beneen saltige ngi noonu yaram ma nga tàng yaram bee tàng Aïcha Doudou Sané ziar naa la. delloo ziar. maa ngi lay félicité. ah merci beaucoup. waaw Aïcha di yokk cere doole ñeex rek. billaahi billaahi eh, mu mel ne yaram bi tàng na. waaw comme d'habitude rek. Ah. ni ñu koy daw di defee rek. xanaa gisoo ponkal yi ngay tëb di dal nii <laughs> ah. gëm damaa gëm sama bopp. la ko jaaw aw ma seen fay billaahi lu ma deful rek dama kaa mënul rek te bàyyi naa leen yàlla ku waaw kon nag fan bilaay waaw merci beaucoup day neex waaw animé bëri jël ko yóbbu ko Pape Ndiaye yee Boucar wala ma ne sox sox waaw wala ma ne Jini Sara waaw mbëru El Hadj Ndour bi waa gis nga yaa ngi tëb di rek waa gis nga xanaa gisoo ponkal yi fi ne man ragaluma loolu ah ragaluma loolu ah, ma ci diis na de waaw dara gis naa fi ay gaayu diis waaw min nañ ko ah waaw mais mu mel ne yaram bi dafa tàng jër looy yëg yow yow kay ubbi sa rek di xool fii tey. Ah. te nga gis fi ngay mujjee ponkal yi. waaw ni nga ni nga daan def ak ñoom. waaw mais est-ce que gars yi dinañ la si bàyyi gars yi ni ma leen gisee nii nii. non dara du yomb. Ah. mais man mii naa la. looy wax ñi lay bëggee. rek ñoom itam. Mhm. waaw maa ngi leen bu baax. Ah. di nuyu suma gars yëpp nag. waa Ngaan. ñi ne si diaspora di bëggee sox sox. arrondissement bi yëpp région bi yëpp. waaw waa Sénégal yëpp daal. waa Sénégal yëpp. waaw ñoo ngi lay naa la maa ngay dak nañ ziar. Birame sa drapeau chef de l'État ba gisuma la. ah gaaw de gàllankoor rek. Birame lay olof koy woo. non na ni ma olof kay ma rek ak ma lay. Sénégal yëpp Birame bi si nee na déglu olof. waaw. waaw naka lamb nam njom ne. njom ne affaire la de wax dëgg fa yàlla anima de ma yaxa pes de. mam mo mam mo. mi refe kaga kam jeg o petit rek problème rek. Ah. waaw kaga rek u eh? quoi. waaw waaw kaga rek eh. nam njom ne. an fopa ande biram bise nam tuwi da. waaw fo goy de. waaw waaw i. yob ge koy. ka wena mbike. eh ha. refe pour mi supporter ke taxu supporter ke maf nana. jaajëf Adi Adi yaa reer wala maa reer. non man maa xawoon a reer nag Adi Dia. maa xawoon na réer ah, maa ngi nii rek. Ah. waaw di wa de rek. de retour waaw waaw de retour waaw. de retour à Mbellacadiao. waaw à Mbellacadiao. am làmb ji. waaw làmb ji neexagul na de. neex na de di ñaan yàlla yàlla def ma jël affaire bi rek. ñoo ngi lay naan bonne chance kon. waaw merci waay merci beaucoup. ayca ba léegi rek ci tirage yi. tirage poids lourd ordinateur ak Pape gis noonu mbor Ibrahima Diouf bi moo féete càmmoñ moog Pape Abdou Pape Abdou ak ordinateur ña sol na ko mo ngi koy sol na ko waaye Ndiago Nguindine Ndiago moo féete càmmoñ moo jóge Nguindine sa waay sol na ko di ko forcer waaye Ndiago bañ na waaye ordinateur ak Pape Abdou ordinateur sol na ko di ko doole Ndiago sa waay waaji daan na Ndiago Ndiago daanu ordinateur ak Papa Abdou ordinateur takk na ko Papa Abdou jàpp sa sengoor ya ordinateur ordinateur Papa Abdou ordinateur koy jéem a bay Papa na ordinateur a koy wetu lonk takk na ko tegal 16 waaw daan na ko ordinateur daan na Papa Abdou. ca Toubacouta nuyu naa la. Boucar maa ngi lay fay. borom maa ngi nii. ak Saloum bi. waaw ziar naa la. delloo naa la ziar si loo ne. naka jaa ngi nii moo ngi neex de. waaw keroog nga daanu Adrien Senghor premier tirage booy fay daala la daan la nga ñëw. waaw jël ñëw wetu Fatick. waaw ñëw yaat la wala fan la. ñëw ñëw siin jël ko rek. ñëw siin jël ko rek comme que nañ buur siin buur Saalum laa. ma ñëw siin rek wane sama bopp di ñaan yàlla tese ki ñu naan buur siin fii. ñu xool buur Saalum ak buur siin ku man. ku ñuy naan buur siin fii. ah buur siin ngay xam nga ko jëru. kan la tudd ordre. ah ordi mooy Bour ah, waaw nee nekk Bour Saloum. nee nañ moom moom Sine kay. ñëw fekk ñëw fekk si ko Sine ba nga nangu couronne bi. waaw comme que dimanche ba la ñëwoon naa Sine génnul. léegi nag ñëwaat naa Sine mu génn xëy na li ma dugg Sine ko naqari ñëw na. Ah. yàlla nañ tase ma daan ko rek incha kon bonne chance. Ah. waaw maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp. ayca Amine John ziar na la. waaw maa ngi la doole ziar bu borom Njaanjaay Fatick. waaw Amine si loo ne. <laughs> maa ngi nii rek. foo réer foo réer. ci àll bi rek. naka lamb ji. ah lamb ji mu ngi ne rek. yëngatu na de. waaw yëngatu na bu baax baax moom. looy wax gars yi non gars ah di courage rek. waaw. ñu lay bëgg quoi. non waaw amul benn problème. moo féete càmmoñ moo jóge Biibaan wetu Ñaaxaar Amine moo jóge Njaanjaay Fatick su ma nee Amine John rek sama xel dem si Baba John Paa Jibi Sarr Diaz petit savant maa lay bëggee di bëggee Seydou Ousseynou depuis Fadia maa ngi bëggee sama mafia Fadia bi yëpp sama gars yi maa ngi leen di bëggee di leen Birame Mbissine Sène Amine Dione Birame Mbissine daw na jël ko jël na ko Birame Mbissine ak Amine Amine na ko Birame Mbissine war na ko ndombo Birame Mbissine war na Amine ndombo Amine ba di nga ci génn Birame Mbissine ak Amine ma ngi koy tar ma ngay bañ penalty Birame Mbissine daan na Amine Dione Birame Mbissine daan na ko Mourax Gandiaye lañ koy wax ziar naa la. waaw ziar naa la Boucar. naka làmb ji. waay làmb ji yaa ngi nii rek. si loo ne. waay maa ngi nii rek. yaa ngi ci àll bi rek. waaw maa ngi ci àll bi waaw. naka naka waaw ñëw si kawam di di. waaw sax moom. waaw. ak waaw lépp naka naka mbel ji mbel ko def. làmb bi waaw neex na de. neex na de waaw tey moom ngeen seetaan. mais est-ce que dina yombul di làmb ji daa diis na de. waaw làmb bi ah làmb de moom duy diis. du diis quoi waaw. kon ñu ngi lay naan ok merci. jaajëf. ayca ordinateur ziar naa la Boucar dañoo ziar bu wér. yaay buuru siin. Hmm? yow yaay buuru siin yow. ah yi ko wax de. Toubacouta nag nee na mooy buuru Saalum dafa ñëw siin fas yéene la affronter loolu la mu wax léegi. ah na mooy buuru Saalum ñëw na siin dimanche passé génnoo mu ñëwaat siin fekk si la dafa bëgg a dajeeg yow daan la looy wax ci loolu. waaw incha allah lamb kii baa ngi nii. ñaar mos ngeen bëri leer. waaw mos a ñëw bëre kay. nu mu demee woon. non li ñu bëre yëpp man maa ko daan quoi. kon nu la ñemee nii nag nu ñeme la nii ñëw ñeme ah mais noonu la noon la yooyu itam noonu la xeeb wala nu mu demee noonu ah non en tant que buuru siin mu ñëw fekk si la sa dëkk ne daan waaw mais noonu la noonu la noonu la mais nag xoolal nañ xaar géew rek nañ xaar géew bi waaw ah ordinateur si la la ne waaw maa ngi nii Boucar di compétir rek gisaguñ la kaar ba tey de waa si xam nga man moom mooy loolu. laa dix millions yi daal ñëwul. waaw gis nga maa ngi si àll bi mais damay ñëwaat ah, damay ñëw après. gars yi daal ordinateur àll bi la mëneen loo siy wax. non loolu wax na si li may wax ba pare gars yi loolu détail la Boucar waaw même bu fekkee si àll bi laa mu ne sax nekkul ne mbërëm tere mu ne ndax ñi mbër yi fi nekk yëpp xam nga nu mu demee yow non xëy na li li li ci yi gëstu noonu man sax loolu gëstu ma ko si mais mais aussi lépp lu si mun a nekk rek yàlla moom moo ko dogal quoi naka lamb ji waaw lamb ji moom alhamdulilah quoi nga koy waaw waaw non lamb ji moom na en attendant mais gars yi gis naa fi ay punkal yuy sayda nee na ñoo moom drapeau bi ah waaw mais am nañ droit wax mais nañ baay bu final ba nañ yooni yàgg. waaw. ñaari avertissement baa leen doorante bi ngeen bëre. baa leen doorante bi te bëre. Toubacouta Abadiora. baa leen doorante bi te bëre. li du bëre door. Toubacouta Abadioral. ñoom ñaar ku ne am na avertissement. songo nañu songom kaw Toubacouta Abadioral fii si Mbélé Kadiaw. Toubacouta. aba jooral Touba sa waay bu la génnee di nga am trois avertissement dinañ la baare boo génnee dinga nga am trois avertissement dinañ la baare Toubacouta dew na jël aba jooral mbotti na ko Touba bañ na Toubacouta aba jooral mbotti ba mbotti na ko Toubacouta aba jooral ña ngay mbotti wante yegg nañ suuf Toubacouta aba jooral Toubacouta daan na ko Toubacouta daan na aba jooral soox soox moo leen woon ginnaaw mook Papa Gueye Mouma soox soox moo leen woon ginnaaw Papa Gueye ngeen jàkkaar lool lamb ji nag délégation yi dañoo bari ñeenti délégation ñoo fi ñëw tey soox soox ak pap soox soox taxaw taxabal ba dafa sori Papa Gueye lonk na ko jël na tàng ba soox sox bañ na oh soox soox ak Papa Gueye Mouma Papa Gueye takk na ko mu ngi koy forcé waaye soox soox bañ na arbitre oh Sokh Sokh daan na ko. Sokh Sokh daan na Papa Gaye Mouma. c'est un phénomène ni ma koy waxee. ayca ba léegi ci tirage yi Doudou Sané Cheikh Faye Doudou Sané daw na jël tànk ba oh Doudou Sané daan na Cheikh Faye jël bi gaaw na di Doudou Sané daan na Cheikh Faye ayca laatira ngoog borom mbele ka ayca onkong ak Pape waaw Cheikh Ndiaye la ñuy way noonu a den koy mboti a den mboti mu mu moy mu takk na ko a mboti waat ko mu moy waaye onkong jël na tànk ba onkong jël na tànku Pape daan na ko onkong daan na Pape waaye aadi ak mu rax ganja ca da koy zongale wala da koy tegal 16 oh Mourax Gandiaye fi nga yegg aadi sori na zongale waat na ko daan na ko Mourax Gandiaye daan na aadi batiment daw na bam ne gàttandu ko sol ko bam ne coombi batiment bëre xale mag la bam ne coombi am na ngemb Batiment Mbam ne am na ngemb Mbam ne coombi am na ngemb waaye Batiment waaw Mbam ne coombi zong da koy zongale wala da koy zongale wala Mbam ne coombi takk na ko Mbam ne coombi Batiment Batiment da koy mbotti lonku na ko tàng ba Mbam ne coombi am na tàng da koy dëj wala da koy yenu Mbam ne coombi Batiment daan na ko doole doxul jàmm Mbam ne coombi wala nga ne pañaaw daan na Batiment ordinateur ak ki naan Ngurban ordinateur daw na jël ko ordinateur Ngourbaan combat derby seen dëkk yi sorante wuñu waaye bu ñu dajee oh, ordinateur daw na jël tànk ba Ngourbaan bañ na ordinateur daw na moo ngi koy takk moo ngi koy dajale Ngourbaan a ngi daw di bañ di rasu ordinateur Ngourbaan jël na tànk ba ordinateur Ngourbaan remplacé wala lan ordinateur jël na tànk ba ordinateur jël na tànk Ngourbaan oh ordinateur Ngourbaan ordinateur Ngourbaan jël na tànk ba jéem ko dëj mu bañ mu oh, ordinateur takk na ko ordinateur takk na ko forcé mbotti ordinateur Ngourbaan moo ngi forcé moo ngi imposé mbaru oh ordinateur daan na la ko da Ibrahima Diouf bi daan ordinateur daan na le grand champion Mamadou Faye daan na Ngourbaan jomina ngeen jàkkaar lool Ousmane nee na ndak la dëkk Birame Mbissine dëkk dëkk bu ñu naan Biibaan dëkk Xadi Njaay la Birame Mbissine ak Ousmane Mbissine ak Ousmane Biram Mbissine daw na jël ko sawaay bañ na Biram Mbissine nga ko jël Ousmane a ngi bañ Biram Mbissine nga ko jël Biram Mbissine a ngi jël Ousmane di ko jéem a faqat bañ na Biram Mbissine waaw remplacé na ko daan na ko Biram Mbissine daan na Ousmane Birame Mbissine Sène daan na Ousmane Toubacouta Sokhsokh Toubacouta Sokhsokh ñaari mbër yaa nga ca Sokhsokh daw na mbëkk génnaat Toubacouta Sokhsokh Sokhsokh jël na tànk ba Touba o oh, Touba jël na tànk ba Sokh bañ Touba Sokhsokh lonk na ko caxabal ba lonk na ko caxabal Touba bañ na Sokhsokh Toubacouta o oh, ñaari mbër yi Sokhsokh Toubacouta Sokhsokh Toubacouta Sokh Sokh ak Toubacouta ñaari mbër yaa nga ca Toubacouta moo féete ndeyjoor Toubacouta Sokh Sokh Toubacouta Sokh Sokh Toubacouta ak Sokh Sokh oh ba metti na ñaari mbër nga ca Sokh am na ngemb Toubacouta am ngem du doon koy jéem a forcé da koo bëgg a forcé waaye sox sox oh Touba war na ko ndombo sox mbaa di nga ci génn war ndombo daan na ko Toubacouta daan na sox sox Toubacouta daan na sox sox Toubacouta daan na sox sox sox sox jomi na mu féete ndeyjoor Doudou Sané Doudou Sané moo féete ndeyjoor mu rax Doudou Sané pàtte na ko mu moy jël tànk ba faqat ko war ko ndombo forcé waat ko faqataat ko mu moy oh Doudou Sané. Doudou Sané ak mu rax Gandiaye ña nga ca ba aca Doudou Sané Mourakh plaqué na ko waaw Doudou Sané plaqué na ko daan na ko Doudou Sané daan na Mourakh Gandiaye Doudou Sané daan na Mourakh Gandiaye ci quart de finale ku daan dem demi-finale acca oo oh, dan na ko jël ba rëy na bam ne coow mi na ko da pañaw nee na ko dama lay rey da koy mbam ne coow ñu naan ko pañaw suñu père Babou Ngom a ngi noonu di ko ñaanal yàlla yàlla guddal ay fanam bàyyi ko fi ba si kanam kanam kanam kanam un tambour a marqué l'histoire de la lutte au Sénégal notre très cher père Babou Ngom que Dieu que Dieu lui prête une longue une très très li ko wër bàyyi wu ma Ngom. Biram combat baa ngi noonu combat derby ñaar amul mayante Sémou Diouf amateur bu mag bi jógee jógee jógee Dakar dawal oto Mbambey ka jaw seetaan si lamb Sémou ziar naa la. waaw Abdou Fila be Serigne Sow Serigne. noo gisee combat bi. waaw combat bi lamb jëm macha allah neex na ko waaw. combat derby la de. waaw derby la moom vraiment. diggante ñaar seen dëkk yi jegalantoo te waaw je la nag mën nañ jël bu rafet nag. ñoom ñaar ku ne daan na ku ne daan ah. kon ñoom ah, la belle waa war naa mën a neex. Birame Mbissine Sène borom jaaw amateur bu mag la Dakar la jógee dawal ñoom Mbéyelaka Diaw seetal si lamb ordinateur Birame Mbissine Sène un combat de gladiateur ordinateur Birame Mbissine Sène combat oh! may nuyu Boursine Boursine bu docteur wala bu maître Basirou borom société nationale de recouvrement borom ñaxaar ñoo koy nuyu di ko ziar sama frère la maa ngi koy bëggee di bëggee maître Bass ordinateur Birame Mbissine Sène kii jóge bii ban kii jóge kii jóge ngeen ñaxaar ñoom ñaar ñu bokku ñaxaar ordinateur Birame Mbissine Sène moo yore ngeen lu ñuul li mbaru Ibrahima Diouf bi borom France ordinateur Birame Mbissine Sène bëre loxo bëre kaw ordinateur Birame Mbissine Sène combat baa ngi noonu amateur yi nee nañ teg combatteur bi la amateur di bëgg di gis Birame Mbissine daw na ramassé ko daan na ko Birame Mbissine daan na ordinateur oh Birame Mbissine Birame Mbissine ko pare na Birame Mbissine nee ko pare na Birame Mbissine Sène champion la amul ku mu Toubacouta Doudou Sané daf na jël na ko Touba génne ko Toubacouta Doudou Sané Doudou Sané padd na ko mu mayu Toubacouta Doudou Sané bëre doole Doudou Sané koy jéem a bëtt waaye Touba bañ na wéyale ko mu mayu jël Toubacouta Doudou Sané Doudou Sané war na ko ndombo Doudou Sané war na Toubacouta ndombo Doudou Sané war na ko ndombo Touba ak Doudou Sané da koy mbotti wala Toubacouta Doudou Sané oh Doudou Sané Toubacouta Toubacouta Doudou Sané Toubacouta Doudou Sané oh Toubacouta daan na ko Toubacouta daan na Doudou Sané Toubacouta daan na Doudou Sané oh Toubacouta daan na Doudou Sané Toubacouta daan na Doudou Sané Toubacouta daan na Doudou Sané oh, jooy waaw mais lamb la ça c'est le sport faut Doudou Sané Toubacouta ngi noonu lamb ji yëngatu na le Biram Mbissine Sène mbam ne waaw yóoru na Biram Mbissine kol ko mbam ne di ko mbotti Biram Mbissine bañ na mbam ne Biram Mbissine mbotti na ko mumay Biram Mbissine bañ na mbam ne coombi Biram Mbissine Sène oh mbam ne coombi Biram Mbissine jàppagul tegal na ko 16 Birame Mbissine daan na mbam ne coombi Birame Mbissine Sène daan na mbam ne coombi Birame Mbissine Sène daan na mbam ne coombi un champion xale la champion la Birame Mbissine Sène daan na mbam ne coombi arbitre sifla waat na arbitre sifla waat na arbitre nee na dara amul arbitre nee na dara amul Birame Mbissine Sène mbam ne coombi gaay bu ñu yàq lamb ji waaye waaye arbitre yi war nañu xoolaat seen décision Birame Mbissine Sène Mbam ne coombi waaw superviseur bi nee na leer na superviseur bi superviseur bi superviseur bi nee na leer na waaw superviseur bi si table bi sax nee na leer na coombi Birame Mbissine Sène oh Mbam ne coombi Birame Mbissine jàppagul tegal na ko 16 Birame Mbissine daan na Mbam ne coombi Birame Mbissine Sène daan na Mbam ne Birame Mbissine seetaan na ba mu ne coombi. waaw maa ngi lay ziar. nga waaw waaw. yaa ngi door a finaloo ren wala. waaw maa ngi doog a finaloo mel ni ba nga commencé rek léegi yàgg. déedéet ñaar lamb rek laa bëre quoi. waaw nga bëre ordinateur daan ah, waaw. yéen ñaar mu jege waaye ba ngeen di bëre muy métti. ah la rek. Ah. waaw lamb la rek du dara. waaw Birame Mbissine moom ku xamul dégg nga turam. waaw waaw Birame Mbissine bu nekk à 100 pour cent rek. waaw dina xam ne ñëw naa de. du yomb de. waaw du yomb de xam nga ki nga war a bëre. waaw am naa ko. Touba gis ngeen bëri. waaw daan naa ko benn yoon. benn yoon ngeen bëri nga daan ko benn yoon. waaw kon xam nga ne day jël si revanche am. ah waaw. du yomb de. du yomb de looy wax waa Biibaan waa Ñaaxaar waa Fatick. si projet yëpp maa ngi leen di gërëm nag di leen sant nag surtout waaw. ñoo ngi lay jaajëfal. ok merci beaucoup. Touba ziar. rajo Boucar borom campement. ngi nii de. Buuru Saloum. maa ngi nii. Sine moom mënoo koo moom ma ne a ah waaw Sine de waxoon naa la sànq si. njëlbeen siin mënoo ko moom ma ne fi. waxoon naa si njëlbeen bi daal ne la borom siin ñëw na tey. nga war a final. waaw maag Birame Mbissine. xam nga ki nga war a Birame. xam naa ko waaw ah, Birame Mbissine xam naa ko. nee ma daan la benn yoon de. benn combat daal la daan rek siiw. ma foog ni moo man ñëpp. mais mais daan na la. lay leer. tey lay leer. waaw da nga da waaw da ngay nangu daan na la wala daan na la tey lay leer. revanche nga jël si. waaw. boo ko daan tam revanche nga jël si. dama ne la dama koy daan tey. Birame ko xamul dégg nga tëram waaw bi mu daanee rek rek. war naa ko rek rek nag. amul kum daanul moom lu mu jël si làmb daa war a fay rek rek. amul kum daanul. waaw moom waaye bu ko bàyyi mu waaye xam mën bëre moo tax mu daan rek rek. non loolu mën bëre. heure la dinaa ko jàngal bëre tey incha allah. Birame Mbissine. Mhm. à suivre. incha allah. ay ca final baa ngi noonu. final. diggante Birame Mbissine Sène ak Toubacouta. may ziar lay di seen borom mbéy la ngëj maam Waly Sène. Cheikh Ndiaye borom mbéy la Kajaw grand marabout maa ngi koy ziar. di ziar Serigne Bass Serigne Mbayang Loum sama Serigne. oh si sengane borom latma ngay aare borom tilki sama gaagaay Toubacouta Birame Mbissine Sène combat revanche Birame Mbissine nee na dama ko daanoon Touba ñoo ne damay fayu jàngal ko bëre Birame Mbissine Sène Toubacouta combat derby combat choc Birame Mbissine Sène Toubacouta ay ca Birame Mbissine Sène Toubacouta arbitre sifflé waat na Toubacouta biram Mbissine sen di nuyu sama frère Modou Sakho depuis Diakhaw Toubacouta Birame Birame Mbissine Sémou Diouf maa ngi koy nuyu di ko ziar Toubacouta Birame Mbissine Cheikh Touré ziar la borom Diakhaw Sine Ibou Sène borom Djilas Toubacouta moo féete ndeyjoor Birame Mbissine Sène moo féete càmmoñ Toubacouta Birame Mbissine Sène ñaari mbër yaa nga ca baa ngi noonu final poids fii si Mbele Kajaw Toubacouta daw na jël na ko Biram Bisin bañ na Touba jël na ko Biram Bisin bañ na Touba jël na ko Biram Bisin bañ na oh Toubacouta oh, Biram Bisin seen Biram Bisin dina am avertissement Toubacouta moog Biram Bisin seen final baa ngi noonu arbitre daale normal daale norme Biram Bisin daa waroon am avertissement Toubacouta Biram Bisin seen final baa ngi noonu Ibrahima Diouf depuis France maa ngi koy ziar. Toubacouta Birame Mbissine Aliou Sarr depuis Brésil Daouda Ngom Matar Kanté Ibrahima Wade doomu day Ramdan Fankhaman Matar Kanté sama doom yaay maa ngi lay bëgg a jëlee ziar naa la Toubacouta Birame Mbissine sama tooma Boucar Dione doom ndeyam ngoox Elas Ndiaye asalem Mame Waly Sène Fankhaman maa ngi lay ziar Toubacouta Birame Mbissine Sène Elas Ndiaye ak Modou Mbaye depuis HLM maa ngi leen di bëgg di leen ziar Amath Sall sama frère. Toubacouta Birame Bissine Sène final poids lourd combat derby revanche Birame Bissine ko daanoon benn Toubacouta nee na Birame Bissine Reug Reug moo ko siwal ndax li ko daanoon ma ne ko Birame Bissine daa bëree ba daan Reug Reug Toubacouta Birame Bissine Sène final baa ngi noonu Mbayang Loum Momo Ngom ñoo fi nekkoon fi si Mbellacadiao ak Lutte may nuyu sama frère Ablaye Sarr borom Ñaxar waaye Bour Sine kenn du la fàtte wala ma ne Coumba Ndoffène faxat na ko mu mooy Toubacouta jël na tànk Birame Mbissine da koy dej wala Toubacouta jël na tànk Birame Mbissine Toubacouta Birame Mbissine Toubacouta jël na tànk ba oh war na ko ndombo Toubacouta Birame Mbissine Toubacouta am koy tar ma ngay bañ Toubacouta Birame Mbissine seen Toubacouta daan na ko Toubacouta daan na Birame Mbissine seen jël ba rëy na ayca ñoo ngeeg Faly Mbodj le président lamba ji jeex na Faly ñoo ngi lay ziar waa delloo ziar Boucar na nga def ça va. ngeen dëgg lamb ji tool nii mbooloo bi si mbër yi ñëw ndax am ngeen satisfaction. tey moom am nañ satisfaction parce que affaire yi mbër gars yi bëri te woy neex nañ tëgg yi neex na. waaw waaw te public am respecté am nañ respect quoi. mu mel ni lamb bi lamb bu mag la organisation bi mbaa duy métti. organisation moom métti na waaye daal l' essentiel daal li ñu soxla woon daal bëgg na ne mu réussir liñ mun liñ a def daal pour mu réussir am def léegi euh, lii moo nekkoon moom moo nekkoon seen ñaateelu seen ñaateelu édition parce que daa mel ni lamb ji lamb la. waaw ah xaw naa yàgg moom xaw naa yàgg trop xaw na parce que depuis si paa yi la ba après paa bi ñuy commencé jël ko nii. si am am si deux ans trois ans nekk comme président lamb bi quoi waaw waaw. est que mën nañ leen xaarandi ngeen tegaat beneen beneen beneen beneen lamb fii ak non fo ñun moom foog naa benn saison bu nekk daal benn lamb la ñuy tëgg quoi. benn lamb la ñuy tëgg quoi. naka ngeen gisee liggéeyu Lutte TV ci lamb. non Lutte TV moom foog naa di ko jaajëfal rek di leen di ñaanal. Ah. donc ñu gën a dem kanam rek affaire moom rafet na trop rafet na trop. gars yëpp kontaan quoi.